nekkoon fi jàmm fekkat fi jàmm kon nag salaam mbokk xarit yu ñuy seetaan dal la jàmm ci seen revue de presse quotidienne ndax bëgg ngeen a xam kër yéene kaay yi la leen fësal tey jii kon nag bismillah ñu àndandoo xuus ci biir jàppazon actualité yi. soppi soppi soppi su demee ba jur sàppi sàppi mujjee ci noppi noppi kon nag yoonu yokkute yokkute cëppeelu na ci yoonu yàqate yàqate la tribune moo nu fësal wax nu ni bukki ba siiñoon maître Abdoulaye Wade matt na Macky Sall ndakaaru démb foo leen génn fépp takk na jëppit dëkk bi boobu léegi ndox amul fi xam xamoo di dëkk bi robinet yi xeliwul loolu nag merloo na ndaw yi nga xam ñoo nekkoon ci gox ak goxaan yi génn nañ ci biti indi nañ fi jeexi jaaxa sapeur pompier yi mujj na mu ëlëm leen ba amuñu ndox mun ko daal di fayee fi nga xam moo di hôpital bi ñuy wooyee CTO ñoom nag te dëgg dëgg dëgg nekk na nag ci jiixi jaaxa joo xam ni malaat yeen fay yóbbu seen bakkan mi ngi ci xottu gerte waaye mi ngi fi nga xam mooy yoon bi jëm ci aéroport jóge fi nga xam moo di Mamel wala jaar fi nga xam moo di Yoff ndaw yi dañ ko daal di bloqué ba xam ni kenn munul dem kenn mënul dellu si démb képp koo xam ne génn nga ci biti fi nga xam moo di ndakaaru gis nga loo xam dafa lay daal di yéem di la bi nga xam ne nguuru Abdoulaye Wade mi ngi doon jeex loolu lu ko indi mooy ndox moo xam ni taw bu góor la fii fépp leen wër mun na ko am fi xam moo di Mamel Yoff Nord Foire Patte d'Oie Grand Yoff Jëppal Castor ñaari tali ba fi nga xam moo di Tëngéej fépp àndandoo takk policiers yi dañ mujj tëj ko ñëpp waaye dem nañ ba nga xam ne mbir mi ëpp leen loxo waaye la ci ñi nga xam ñi dëkk Dakar mbir mi metti na leen lool metti ci seen biir ngor parce que bëri na ci ñoo xam ni sax astafurlaa bu ñu bëggee dem ginnaaw kër sax amatul fenn foo xam mën nañ faa jaar ndaxte ndox kenn mënatu ko am bu fekkee ni le populaire moo nu wax ni quartier yi ñu lim ñëpp ma ngay tàkk fi nga xam moo di ndakaaru bu ñu cëppeeloo ci l'observateur moom la muy indi mooy li xew fi nga xam moo di kër Momar Sarr foofu lañ doon jéem a defar tiwo bi nga xam ni ndox ma fa lay jaaree di ñëw waaye la ca doy waar mooy tiwo bi ci bu fekkee ni fukki waxtu ci suba jot na ci lañ ko daal di réparé waaye bi ñu demee ba vingt heures di jot maanaam juróom-ñetti waxtu ci ngoon fii nga xamante ni moo di kër Momar saar tiwo bi dafa ànd ak ñoom daal di kalaate encore mu nekkaat problème boo xam ni xam lu nag lañ koy lijjantee waaye dafa mel ni SONES SDE bindoon na ko benn bataaxal boo xam ne mbir moom mi ngi ci doon wax ak ñoom waaye dafa mel ni dana leen daal di tànqam lu ba na jamono yi coow laa ngay fi nga xam mooy diggante kan moo gàddu li nga xam ni xew na ci dëkk bi nga xam ni ndox kenn mënatu ko am Abdou Latif Coulibaly ci yéen kaay bi ñu naan l'observateur ni lii nag accident la nit ñi nenu muñ waaye association consumériste yi ñoom gisew ñu ko noonu de nee na ndàmpaay jugee ci SDE SONES wala nguur gi jëm si ci ñi xam ñoo di askan wi ba tax na jamono yi Sénégal ñu ngi ci ay jeexi jaaxa yéen bi ñu naan la tribune moo leen daal di feelu moom fi mu dikk mooy cadre yi nga xam dañ nekk ci administration bi ñoom dañu joxoñ baaraamu tuuma ñi nga xam ñoo di tubaab yi français yi ñoom ne ne français yi ñoom ci seen bopp ñoo saboté réseau hydraulique bi nga xam ni moom moo ŋànk fii nga xam moo di ndakaaru loolu nag nekk na loo xam ni faw ñu gëstu ko ba ci biir pour xam responsabilité yi kan kan moo koy daal di gàddu yéen leen ñu ne kay bi ñu naan l'observateur ci xëtu mu njëkk kan la daal di fësal Omar Traoré kooku su leen koo dëggee moo di bakka Bakayoko mi nga xam ni dañ ko miin ci téléfilm bi ñu wooyee un café avec moom nag am nag date yoo xam ni joxe na ko mu di ay dat yu yéeme waaye ba ko ci gën a metti mooy 2012 nee na at moomu nag ci la nga xam ne way juróom bu jigéen dafa génn àdduna yaayam bëggoon jóge fi nga xam moo di Côte d'Ivoire wàcc si fi nga xam moo di Dakaaru seet si ko waaye loolu mujj la antu moom Bakayoko am na yeneen i date yoo xam ni ca dëgg-dëgg waxtaan na ci saafonte ak njaboot gi nee na bi ko gën a mooy 2011 mooy bis bi nga nga xam moo di un café avec daal di koy fi nga xam moo di télévision bi xalaatul woon def liggéey bu noonu waaye nag 2011 la mu a fàttaliku mooy keroog bi mu fi nga xam moo di cosaan kii di Youssou Ndour gis ko daal koy jaajëfal daal di koy encouragé ci li nga na look la koy fàttali mooy campagne électorale bi boobu nag Youssou Ndour mi ngi woy ñëpp di génne seen carte te loolu ñu ngi jëmoon ci li nga xam moo di deuxième alternance bi loolu Bakayoko nee na ba léegi mi ngi koy fàttaliku. ñu dem Touba Mbacké waaye dañuy jàpp ci seen loxo cëppeelu fi nga xam moo di Ndakaaru la tribune yéen kaay daal di fësal Serigne Bass Abdoul Khadr mi nga xam dafa gane si ñi nga xam ñoo di taalibe fii ci Ndakaaru waaye la ca doy waar nit ñi na ngay jaabante di dem di ko seeti di giseek moom kenn ku ci ne bugg nga tëju ci biir nekk xumtoog moom mu nekk ay ministre yoo xam ñi ngi ci gouvernement bi ku mel ni Abou Abel Thiam nga nga xam mooy cadre présidence bi bokk na ci nga xam ñi ngi doon ñëw di ko seet si ki nga xam moo di Babacar Touré mi dénk Sénégal moom tamit dugg na ci biir nekk Diop moom mu mel nii waxtaan bu yaatu ma ngay am diggante seen bas Abdoul Khadr mi yor kaddu xalif général kullu murit fépp foo xam ne dem na fa bu wàcc seen Ndakaaru ñu bëri bëgg na nag am ak moom déeyoo diisoo kon nag mbokk ak xarit yu ñuy seetaan duñ def lu dul jaar ci buntu sarela bi cëppeelu ak yéen ci fi nga xam mooy suñu xabaaru xew-xew jamono. xattul xatti bilaadil ardi wasamaa yi boo leen ko déggee loolu ay lakki naar la mu mel ni alqaïda fëgg nañu buntu Sénégal l'observateur moo ci dikk mu ne mbir mi nag dafa daal di doy waar fi nga xam moo di frontière diggante Sénégal ak Gambie lañu gis ñaar fukki médecin ñoo xam ni ca kër docteur lañu bàyyeekoo waaye dafa mel ni ay pakistanais lañu ay pakistanais yoo xam dañu ñëw mbubboo nag mbubbu li nga xam moo di ay médecin bugg dugg si fi nga xam moo di Ndakaaru waaye dafa mel ni bloqué lañ leen ci nga xam moo di frontière bi ci li mu gën a gis ni ñooñu loolu ñoo ngi ciy yëngatu mooy dafa mel dañ bokk ci réseau bi nga xam moo di réseau touriste bu ñuy wooyee al Al-Qaïda ba tax na Sénégal ci wàllu kaaraange jamono yi nag jël nañ ay mesures yoo xam ni lii duñ ko nangu ay bukki yoo xam dañu daal di wékkoo dañu béy ñoo bëgg a indi jeexi jaaxa ci biir Sénégal waaye l'observateur nee na ministère de l'intérieur loolu du ko bàyyi mu sedd la tribune yéene kaay suñ ko tijjee liñ ci teg moo di tës askan lan amul waxtaan waa ji li ko dal doy na waar lool kii nga xam moo di soxnaam moo koy nax ak beneen nit boo xam ni pharmacien la nee na loolu nag xamu ci woon dara ginnaaw go nag da doon tukki di dem ndakaaru di delluwaat fi nga xam moo di àll ba waaye nag soxnaam si day ngoro juddu na digganteem ak pharmacien boo xam da ko doon toggal añ di ko yóbbul muy lekk ca nee na mu mus ko ci wax dara bis nag la ko ni jox ma vingt cinq mille dama bëgg banque bi lebal ma xaalis ñu teg ay ñetti fan mu indil ko xaalis bu toll ci deux cent cinquante mille boo xam ne leen dañ koo financé ca loolu mënul ne woon mooy tabaxaat seen kër ndekkite yoo farba woon moo doon tabaxaat kër gi bi ñu demee nag ba mu xam loolu ci la dem ndakaaru toog fa soxna suñu ko nag ca dëgg-dëgg sama passé la bëgg ngir ànd ak waajoo ju sëy moom waa ji nag suñ moytuwul dina ñàkk li nga xam moo di soxnam ginnaaw bi nga xam ni dañ ko jaaree ci poronteel ba daal di dugg ci biir néegam daal di tàngal li nga xam moo di lalam ca mu ne loolu nag ah du piiraange de waaye soxnaam nag moo ko takkoon ci farata ak sunnas Muhammad nañ ko ko bàyyi ba nag mbokk ak xarit ci ñuy seetaan wax waxaat du bëri wax leeral ay wax la li nu bëgg a leeral nag mooy seen xibaaru tàggat yaram ci leen yéen kay bi ñu naan tribune sport fi ñu koy tàmbalee mooy suñu gaynde yu jigéen yi ci wàllu basket fi nga xamoo di afro basket ba nag ca dëgg-dëgg ñoom ñoo daan jàpp nit ñi di leen tër waaye dafa mel ni démb daj na mburu dajul ci taal ginnaaw bi ñu dajee ca ak équipe bi nga xam moo di Mozambique Mozambique nga xam moo organisé li nga xam moo di afro bi nag ñi ngi nekkoon ci seen biir ëtt seen i leen ba tax na suñu gaynde yu jigéen ñi daan na leen waaye donte daan na leen nag ñoom nag na ngay continuer ci quart de finale ca Mali la ñuy daal di dajal ci yéen bi ba tey tey dañuy des ak Alain Giresse moom mooy ki nga xam day tàggat suñu gaynde ci wàllu football yëkkati na ay kàddu ci match bi jëm diggante Sénégal ak Côte d'Ivoire waaye la ci gën a jaaxal dafa mel ni dañ ko joxoon baaraamu tuuma ci ki nga xam moo di Demba Ba boobu ba léegi jëlagu ko woowagu ko waaye Alain Giresse kitaabu na ni digganteem ak Demba Ba amul benn lënt-lënt bu ci am jëlagu ko ba léegi xëy na bis bu jotee dina ko woo mu ñëw waaye amul benn xar ma yàlla amul benn xarma yàlla seen diggante ci amul lenn loo xam ne jàppal na ko Demba Ba kon nag Demba Ba ci biir ñi nga xam ñoo di gaynde yi yàkkamti nañ ko mu dikkaat taxaw ci wetu Papis Demba Cissé. wuréwu dem na këng waxi mag dem nañ dañ tàlli lu ñuy def lu dul suñu làmb la ñuy tijji tëppee lu ci ëpp li nga xam moo di làmb ji foofu nag kënu fësal mooy waa Pikine Eumeu Sène la ñuy gis lu tax ñu daal di fësal Eumeu Sène nee na ténor yi nga xam ne dañu nekk Pikine maanaam mbir yu mag yi nekkoon fi nga xam moo di Pikine gëj nañu am li nga xam moo di ndam yëral Balla Gaye ba mu dajee ak ki nga xam moo di Mohamed Ndao Tyson daf ko mbot mu di jël boo xam ni kenn dootu ko fàtte ba ca gën a métti mooy Bercy ba booy Pikine moom leen bëggoon mu siggil leen waaye Bombardier bi mu ko nee nikki ni koy yóot da koo jaay doole mu daal di jaaxaan mu jeex waaye ne neen Eumeu Sène rek moo leen fa siggil jamono yi moo fay tegale ay victoire daan Gris Bordeaux daan Lac de Guiers daan Balla Gaye war a daje ki nga xam moo di Modou Lo mu mel ne tay shiga waxoon na leen ko dof du wér am xale yi tey ca dof du wàccu kon nag Eumeu képp ku fël ndëndam di nga ko rëccu kon nag mbokk ak xarit ci ñuy seetaan dafa mel ni revue de presse quotidienne bi ak si nañ fi ñuy waaj a tàgg tokki yéen waaye nag balaa boobu mbir mu doy waar xam ngeen ni tey jii mooy bis bi nga xamante ni ci wàllu bateau le Joola koy daal di commémorer maanaam dañ koy fàttalikuwaat mu mel ni ci biir fàttaliku googu dañ ni fàttali ni Mame Madior Boye ci 2002 ba bateau bay suux moom moo nekkoon ki nga xam mooy sunu jëwlin bi jiite woon gouvernement bi waaye ndekete yow ci wàllu diine am na oustaz bu yëkkati ay kaddu yu doy waar kooku moo di oustaz Makhtar Sarr oustaz boobu nag bi mu yëkkati ay kaddu fi nga xam moo di Seneweb nee na jigéen warut a jiite lii moom sax naa ne jigéen ñi buñ ko déggee dina leen naqari lool dina jël sax seeni coquette daal di koy àkk ji nee na Mimi Touré ko falee premier ministre ndekete yoo loolu moo jigul waa réew mi moo tax ndox mi nga xam ne dañ ko doon am kenn mënut ko am ca ndox dafa nekk loo xam ni warut a ñàkk ci dëkk parce que l'eau est vraiment indispensable pour la vie ni ko tubaab yi waxe ndekete yoo oustaz Makhtar Sarr nee na fal ngeen fal minuturé moo ñu yóbbu nag mbir mu mel noonu ndaxte yonent bi subhanahu wa taala moo xool jigéen warut a jiite Jigen warate jité fam ko ci gëna tek nak moy dafa ni lima leen wax pour ngeen gëm ko ndekete yo Ablaye Wade jigen la falon ci 2002 lol mo taxone batalo joolaat dal du sux ni mu tudde la Macky Sall falat ndekete yo fal gogu mo tax ndox amul ci dëkk bi ba ñepp nek ci musiba mbabba ku nga bo xamne ken xamul foo koy du samay wax nak oustaz Martar Sar bu Sénégal wax ci bo leen gëstu ci yene kay bi nga xam mo di le populaire di ngeen ci am jangkat bu gën yo yaatu kon

nena ko jàpp loxo di len wax nag revue de ci jëm bi suba lay delisu wat ñu len di wax nak bu suba subaam jàmm wasalaam